mbokki internet ñu leen di nuyu di leen dalal jàmm bisimila ci xibaaru ay bési dañu koy ubbee rek ak déclaration bi nga xam ne porte parole du xalifa général des mourides daal dina koy def di sëñ Bass Abdou Khadre démb ci cérémonie officielle bu ñu doon amal moom nag du représentant du xalif bi dellu dénk na rek ay kàddu yoo xam ne rek xalif bi daal daal koy yónni gi ngir rekk mu yéggee ko askan wi lu mu ci jot a xamle nag mooy daal lu jëm ci jiite nit ñi jarul di xiiroo ak ŋaayoo yooyu le kàddu la sëñ Bass Abdou Khadre daa rekk rek dénk politiciens yi ci ndigalu sëñ Mountakha Mbacké ci cérémonie officielle bi amoon na démb ndaxte nag li am solo rek nee na mooy na ku nekk rek jël ay responsabilité am taxawaay boo xam ne bu mucc ayib la nee na mu ngi doon waxtaanal ak acteur politique yi li mu leen xamal nag moo di fu ñu nekk nii nag ab àdduna dong la waaye nag suñu delluwaatee ak suñu borom nañu jàpp ne rek bépp jëf boo xam ni rek def nga ko rek ak nu mu mënta toll rek suñu borom da lay àtte te ñi jiite te ñi jiite nguur gi nag bu ñu demee dinañ leen laaj ana nan la ñu jiite woonu askanu Sénégal ba tax na nag ñi féete ci nguur gi dañoo war a rek di jéggale ak di jëlale waaye tamit ñi féete ci kuje gi war nañoo rek xoolaat seeni discours muy nag ab déclaration boo xam ne rek kile di représentant du xalifa général des mourides sëñ Muntaxa Mbàkke di sëñ Bass Abdou Khadre daal dina koy dénk mbooloo bi nga xam ne rek teewoon nañ fa ci biir cérémonie officielle bi ñu daan amal démb ginnaaw loolu rekk dañuy àddu rekk ci teguma loxo bi nga xam ne rek teg nañ ko suñu suñu naataangoo bile di Khalil Camara nekk taskatu xibaar ca sit bile di Sénégo ginnaaw Abdou Khadre Sané mi ñi fi jàppoon fan yi weesu ba bàyyi ko rek jëm rekk ci ci rek ay kàddu yu mu relaté woon beneen convocation itam rekk la waa Sénégo daal jotaat ci waa division des investigations criminelles di waa dikk bile yoon nag moom mi leen di xalila Camara dañu ko placé en garde à vue maanaam dal dañu ko téye ndim la ko wund nag soriwul dara ak li ñu doon toppee confrère am bi leen di Abdou Khadre Sakho ndax moom it rek ab benn contribution daal la jël relayer ko loole nag jaaxal ñu bëri ci taskatu xibaar yi ak sax ñu bëri ci askan wi ndax nag ndeyuma bil mbil gi moom kenn kenn wóolu wu ko ñi wax ci communiqué bi nga xam ne rek waa ONCAV Kolda daa dina koy def jëm rek ci aaye ay chanson yi nga xam ne rek moom la ñuy faral gis léegi léeg ci stade bu match yi amee loole nag xel yëpp day dem rek ci Sonko namm naa la bi ndaw yi xewal ci di wëy ci stade yi ci biir communiqué bi nag li ñu ci xamle ñoom ñi leen di waa ONCAV bu Kolda mooy daal seetlu la nag bi ñi def rek ci wëy yooyu nga xam ne rek ay ab connotation politique la yu ñuy yuuxu te ñi koy def nag ay supporter lañu ci yenn ASC yi ba tax na daal ñoom ñu ngay fàttali rek ñu ay politicien moo tax nag dootuñu nangu rek wala di tolérer rek li ni mel te it su saa su amaatee rek dinañu jël seen motukaay jëm rek ci sanction boo xam ne rek dinañu fay ay ndàmpaay ci lu tollook cent mille jëm sax ba cent cinquante mille francs CFA bu ñu ko nangul itam rek ah, maanaam daal bu ñu nangul jëfee li ni mer rek ci boppam rek la ñuy suspendre ci competition yi waa na Ndour lan lay waajal kenn xamu ko mariage la wala business ab laaj nag bu ñu sampandi la dem ba tey ñu ngay gis daal Pape Cheikh Diallo ak Tické Lawbe di partager ab photom bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag doom doomu Viviane Chidid Ndour bile di la reine di Jolof Band daa am rek lu muy waajal ab benn vidéo nag la ñuy gis rek Pape Cheikh Diallo di ca wane benn montant bu tollook dix million boo xam ne rek yaay ji di Viviane daa dina koy joxe bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ba waral nag ñu bëri gis ni daal ab mariage la wala business daal lay waajal ab lu ci mënta ne ñu ko xam vendredi bi ñu jëm bu fukki waxtu ak juróom-ñett 18 heures jotee sëñ Mara Niass daa rekk rek defaat ay révélation yu doy waar jëm rekk ci feebaram bi ci bésub màggal gi nag ñëwaat na bu baax ci wérgu yaramam limu ci xamle nag te biral ko ci ndigg mbooloo bi bi ko doon teewlu moo di ni daal daa feebaroon te dañu ko condamné nee na nag docteur bi nga xam ne rek moo koy faj daf ko xamal ni daal day faatu te ay fanam nag lu néew rekk moo ci des loolee nag ci gént la ko dikkal sëñ Saaliw nag daal di koy faj muy ay kàddu yoo xam ne rek yëkkati na ko ci mbooloo mi ko doon déglu ci bésub màggal ndaxte bu sëy seen petit gàlle daa di nay rek tontu ci benn tontu boo xam ne rek daal di dañ koy euh, laajte jëm rek ci borom këram gile ndax nag ndax rek nangu na borom këram gile ab sàmba Alaar la ci benn entretien boo xam ne rek suñu naataango yi def nañu ko ak moom. ci bésu cant di premier édition boo xam ne rek borom këram gile di Mario daal dina koy organiser ci la ñu ko laajee rek ndax borom këram gile di Mario ndax Samba Alaar la ndax nag dañu koy gis rek muy baatre li mu xamle nag moom mi lee di ndaxte mooy daal déedéet nanguwu ko borom këram gile nag di Mario du sàmba Alaar noonu la mel te balaa nag mu doon neex nag ñu laaj ko ko ci ay bokkam ci cant boobu sax la ñuy desandi ba tey ndax nag kile di Mohamed Ale Diop di tëgg tëggkatu yonenti ak tëggkatu yonenti ginnaaw rek bu mu àddoo ci relation yi nga xam ne rek moom la amal ak Mario ak artiste bile di wali Ballago sek di la golden boy de la musique sénégalaise daal di nay tontu ci critique yi ñuy jëmale ci moom comme quoi que daal tëgg yi ñuy tëgg di ci tagg yonent bi dañ ciy boole waale yeneeni tëgg niki suus lu ñëw ci àdduna nag day tollook jamono jamono bu ne ak lu cay xew ak luy dox kon nag moom lu mu sentir ci yonent bi da koy def lu mu mën a doon lool nag la xamle moom mile di Mouhamed Ale Diop di taggukatu tëggkatu yonent bi ñu utali ci wàlluma sabotage ak défiance internet ak compétence au cyberattaque yéenekaay bi le nag di Les Échos nag ñëwaat na ci compte Facebook bu Prodac bu ñu piraté ak ay image porno yu ñu ci publier lu jëm ci Prodac googu le nag fu mu ne nii daa am rek ay nit yoo xam ne c'est des personnes mal intentionnées ñoom nag li ñu def lenn dong la dañoo dem nag di pirater compte Facebook bu Prodac daal di ci publier rek ay image porno yu doy waar ba tax na rek daal dina ñoo porter plainte ngir rek ku jëf jëf gi ni teg ko loxo mbokk yi lii moo nekkoon ay xibaar yoo xam ne rek njukkil nañ leen ko dinañ leen njukkilaat yeneeni xibaar file ci Dakar Media TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf wéy leen rek di abone ci sit bile di Dakar Media TV jërë ngeen jëf